joueurs yi nga xamante ne tey ñoo am la lourde tâche war a représenter Sénégal ci lii nga xamante ne mooy compétition bu ñu tuddee Sénégal 2015 te junior yi di ko football ñu ñëw nag di leen jox drapo ci turu son excellence le président Macky Sall pour que drapo bi nekk loo xamante ne daf leen di fàttali que Sénégal ngeen di représenter ngeen war ci dem ak jom ak détermination Sénégal natable wuñ ne am ngeen qualité technique yi am ngeen encadrement bu baax fédération mu ngi def liggéeyam li ci des mooy ngeen fàttaliku bu ngeen duggee ci terrain bi ne Sénégal ngeen di footballal ñi dëkk Sénégal ngeen di footballal mais ñi bëgg Sénégal sax da ngeen leen di footballal dafay laaj détermination day laaj patriotisme compétition la boo xamante ne bu ñu bokkee ci ñeent ñi jiitu war nañoo bokk ci coupe du monde bi nga xamante ne moom la ñu war a organiser ci catégorie d'âge boobu président de la république mu ngi leen di wax ne Sénégal yëpp mu jiite ko mooy état beeg ñëpp dinañ leen jàppale taxaw seen wet loolu sax moom moo tax pour que compétition yi déroulé wu ni mu war a déroulé wu moom moo tax investissement yi ñu def Mbour ñu def ko fa def ko Léopold Senghor continuer di ko def pour mën a def organisation bu am solo na ngeen jàpp ne gouvernement Sénégal dinañ leen gunge dinañ gunge comité d'organisation bi jàppale leen ba ngeen mën a nekk ci conditions yu leen di permettre ngeen def li ngeen war a def mooy au nom de bi gouvernement du Sénégal moom mooy fédération sénégalaise de football mu ngi def liggéeyam en tant que délégataire de pouvoir entraîneurs yi ñu ngi def seen liggéey en tant que technicien joueurs yi wax nañ leen li nga xamante ne moom lañ namm am ci li nga xamante ne moom la ñuy dem ci compétition bi li ci des mooy di gërëm douzième gaynde ak ñiy supporter yépp di leen ñaan ñu mobiliser wu dem gunge xale yi c'est une équipe nationale équipe nationale mënut a ndaw équipe nationale kenn mënu koo xeeb